voilà salaamaaleykum fidèle internet bu Adiana TV ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax ci seen fidélité euh, tey dañoo ñëw nag indi leen méthode bu baax ta gaaw pour euh, doo perdre sa carte d'identité c'est-à-dire même sa carte d'identité bu réer wala mu wadd nga perte sa pochette tu yaa mille chances nga tasee waat moom nga jotaat sa pièce d'identité mais là donc ça devient intéressant say pièces réer nga amaat chance jotaat ko avec quelle méthode xam ngeen ni boo amee pièce d'identité comme ça defoo ci dara defoo ci col defoo ci dara sa pochette aussi defoo ci dara mais su waddee fan lañ lay gisee on a aucune euh, aucun repère de vous pour vous joindre pour vous donner votre pièce d'identité maintenant il y a plusieurs techniques d'ailleurs qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette vidéo dañoo ramasser benn pièce d'identité mais euh, la propriétaire elle est bien organisée lan la def moom dafa am ben pochette euh, fu muy def euh, ñaari kiiwam pièce am pièce d'identité ak pièce d'étudiant bi carte d'étudiant bi léegi dafa amale aussi voilà ben ben petit carnet de notes hmm, carnet bi mu ngi mom la jël bind si turam ak ci carte d'identité ak téléphone am dafa def numéro téléphone ba paré mu def adresse gmail am donc qui dina nexa jot parce que di ko mën def message gmail di ko mën au téléphone donc on l'a appelé au téléphone dina am ben portion ci euh, appel téléphonique bu ci bayil ci vidéo bi ngeen gis donc pour lui dire que on a ramassé votre pièce d'identité et je me fais comprendre par exemple la mienne man euh, ma carte d'identité euh, mu ngi ni légui je mets mon numéro de téléphone nga xam ne ko j'aurai au minimum une chance de euh, revoir ça parce que c'est naa si samay coordonnées ba ci seen pochette une ngeen am aussi ci vous pouvez mettre ça voilà ngeen jël une pochette ngeen def ci col hmm? man defoon naa ci col dama ko dindi léegi nii pour vous expliquer hmm? mais mën ngeen a jël seen seen pièce ngeen def ci seen col ok parce que sans perdre cette pièce d'identité quels sont les inconvénients Vous allez devoir aller à la police. Vous def faire euh, ut certificat de perte ngeen signaler donc là vous allez perdre un peu de temps ngeen à la police pour avoir une carte d'identité moy duplicata pour nga am duplicata di nga jënd timbre bu dix au minimum di nga def rang et cetera alors loolu lépp nag bu fekkee bëgg nga ko moytu dura arrivé mais lii métode la alors euh, lu tax ñu def vidéo bi nag dañoo euh, am koo xamante ne bi ñun ñoo ramassé pièce d'identité am ak carte étudiant am ko ramassé nag ñu am idée ne donc vraiment il est l'heure il est temps que internet ñu indil leen benn technique boo xamante ni bi dina tax ñu mun a bañ a perdre seen euh, pièce d'identité alors mon, nag vraiment il est très organisé parce que au minimum am na a boo xamante ni def bi adresse Gmail am am na téléphone alors merci de votre fidélité ñu ngi ngeen abonné bu baax chaîne bi